على soxna Aida Diallo mi doon woote xalif général des cantaakun mel na ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides dindi na ko ba mu set wecc ginnaaw ba moom soxna si woote màggalu Tuuba foofe ca Ngaabu moom ak yenn ci taalibe ay Thiantakoun fa sax amal fa ay acte yoo xamante ni dëppoowut ak lislaam lu ci mel ni takk sëy nangu njëbbal tudd ay doom mu nekk mbir boo xamante ni naqari na loolu kii di xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ba mu ba mu wolu ko démb ca këram ga ca Daaru Minam ci teewaayu kilifa diine yu bëri ku ci mel ni Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké porte-parole xalif général des mourides sëriñ Modou Rokhaya Mbacke Moustakhin Mbacke di doom ci sëriñ Moussa Nawel biir ndaje ma nag sëriñ Mountakha Bassirou Mbacke di xalif général des Mourides ñaawlu na bu baax a baax li nga xamante ni moo di acte yi soxna Aïda Diallo amal ca bisu màggalu Touba googee foofee ca Ngaabu Serigne Mountakha Bassirou ci ndorteeru discours xamal na ni balaa nga nekk murit dangay nekk ab jullit ba pare te ab jullit dafa war a dëppoo li nga xamante dafa war a dëppoo ak ak digle yàlla sunu borom ak lépp lu jëm ci charian tey moytu bépp tere boo xamante ni yàlla sunu borom tele na ko Serigne Mountakha sàkk sàkkuwale ci soxna Aïda Diallo mu daal di moytu lépp li nga xamante ni moo di tere lislaam ak njàngaleem Serigne Touba Xaadim Rasool ci li soxal taalibe yi cantakun yi topp soxna Aïda Diallo xalif général de mourides bi di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi ngi leen di diggal ñu topp yàlla di jàng alxuraan ak xasiday Serigne Touba yi ndax ci loolu rekk lañ mën a jaar ngir am ngërëmal Serigne Touba Xaadim Rasool dalal discours am Serigne Mountakha sàkku na ci soxna Aïda Diallo mu dakkal ci nu mu gën a bépp manifestation religieuse boo xamante ni nar na koo amal. ginnaaw kàddu yi Serigne Mountakha yi moom jéggalu na ci kanamu xalif général des mourides bi te xamal ko ni rek dakkal na bépp mbir bu di jëfee ndigal di bàyyi tere yi Serigne bi. ربا يقينا بخير الورى بدا سفر